yow naka gisee est-ce que ànd nga ci li nga xamante ne mooy loi d'amnistie bi président Macky Sall. ànduma si bëgg introduire ànduma si ndax la ànduma si euh, déjà ñun sooy xool suñu parti déjà waxuma coalition suñu parti suñu devise c'est ensemble c'est prospérité et c'est paix. Cela mm-hmm. veut dire que nous avons comme leitmotiv comme ligne directrice de notre action politique tout ce qui va dans le sens d'unir les Sénégalais, d'unifier les cœurs tout ce qui va dans le sens économique bien sûr d'améliorer leurs conditions sur le plan économique et social et donc d'ouvrir les voies de la prospérité au Sénégal mais également tout ce qui va dans le sens de cultiver la paix la concorde et la cohésion nationale c'est ça tey la le leitmotiv et la ligne directrice du président Déthié Fall loolu moo ñëw mhm. traduire dans la coalition Déthié Fall 2024 et loolu si loolu la ñuy wéy maintenant yooyu yëpp duñ si paree le président di fa ne attention il faut que muy lalu si dëkk au nom de quoi. mais ñëwal si directement si au nom de quoi. Mhm. de deux mille vingt et un à deux mille vingt mhm. yu bëri xew Sénégal. moo mhm. war passer par perte et profit. au nom de quoi des gens qui sont morts des pères de famille ay famille ñàkk seeni doom amatuñu cette affection maternelle amatuñu cette affection parentale. gisatuñu seen doom. Mhm. am na yoo xam ne tey à chaque fois que je vois ay daal di cere xam nga sama xel si ku muy dem. Mhm. xale boobu ñu boobu mun au passage Zasseni Baye Cheikh. xam ne dara nekkul yoonam nekkul si yoon da doon liggéey am yaakaar si moom mu am yaakaar ni liggéey bu muy def muy vulgarisateur buggul nekk di sàcc nii la leen day def vulgarisateur. pour jàppale ay waajur mais gisee loi d'amnistie ko xaaral moo xam ne ñu si bëri dañoo jàpp ne amnistie bi mooy ça profite ça profite à l'opposition la ñu boom ko. ñu gis ni ñu bëri dee si ñu bëri yàq ñàkk nañ seen bakkan mm. au delà de ça des sept cent personnes dugg kaso mm. ñii ñu gis leen ñàq nañ seen bët ñii ñàq nañ seen tànk ñu gis nii aussi amoon nañu commerce mu yàqu ñii porter entreprise teele seen kër entreprise bi ndërmilu banque bi jël seen kër mm-hmm. mais yooyu yëpp nga ne mm-hmm. c'est passé par perte de profit mm-hmm. tout simplement parce que le président de la République Macky Sall sachant qu'il est à moins de quarante jours de son veut essayer de faire le toilettage derrière lui pour que erreur yu ñuy def ñoom du feeñ mais ñun ce qu'on demande et ce qu'on exige et ce a toujours demandé d'accord mooy l'opposition n'est pas demandeur de la loi d'amnistie c'est un le président Déthié Fall et contre toute loi d'amnistie c'est deux le président Déthié Fall demande à ce que ñi décédé d'accord depuis 2012. 2021 mhm. ba 2024. Mhm. ñu xam ñan ñoo leen boom mu leer. d'accord que le président que également les responsabilités soient situées. d'accord mais si kaw dëkk.